إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار قال تعالى فإذا أنفخ في السور فلا أنساب بينهما يومئذ ولا يتساءلون ñu ngi sant yàlla subhanahu wa taala ñu ngi koy màggal ñu ngi koy kañ ñu ngi julli tey sëlmal ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla mu dolli ko xéewal moom ak waa këram ak képp koo xam ne teg na tànkam ci bés ci sunnaam ba bés penc loolu yomb na yàlla yàlla nañu ci yàlla boole ñuy ñaax suñu bopp di leen ñaax ñu takkoo ragal yàlla ak ci lu ci lu ñu mënti nekk rek nañ ci takkoo li nga xam ne mooy ragal yàlla ndax loolu la ñu mën a amee teranga àdduna ak alaxira ñu xam ne àdduna bi daanaka dafa jeex ba pare te li koy firndeel muy ay mandarga yoo xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon nañu ko daanaka muy yu ndaw jeex na tàkk ba léegi mandarga yu mag yi la ñuy xaar suñu xutba yi jàll yëpp daanaka ci loolu lañ nekkoon di waxtaanee mooy maanaam dundu doomu aadama bi ak li ko war ak ginnaaw loolu yëpp mu xam ne faatu da koy dab te bu ko faatu dabee dañ koy denc li nga xam ne moom mooy bàmmeel te xutba bi passé ci loolu la nekkoon te bàmmeel ci tënk rek moom mooy que ne nit ki bu fa ñëwee examen moom moo ko fay xaar muy ay question yoo xam ne dañ ko koy laaj question yi nag weesuwul ñetti laaj yi mooy man rab maa rabbuka maa diinuka man nabiyuka la moo nekkoon ki nga xamante ne ni moom mooy sa borom te ñun ñëpp xam na ne yàlla mooy suñu borom ndax saa bu ñuy julli ñu ngi koy jàng ci fatiha alhamdulilahi rabbil alamin ar rabb loolu dafa bokk ci wéetal borom bi subhanahu wa taala muy tawhidu rububiya nit ki wéetal boromam ci moom kese mooy borom moom moo ko bind te moom moo ko moom kon su ko defee loolu dañ ko koy laaj yowmal xiyaam su fekkoon dund na ko nag ci àdduna dafay nekk loo xam ne lu yomb la pour mu tontu waaye dinañ ko laaj lan moo nekkoon sa diine tamit sa diine bu mooy diine islam question boobu nag mu mel ni comme boo ko waxee ni ki danaan la kon ñi génn àdduna bu jiitu nag yonent yàlla Muhammad nag foofu ko tontu bi yomb na mooy yàlla musul reconnaître benn diine bu dul islam ak yonent bu fu mus a jaar ci maam Adama ba ci yonent yàlla Muhammad ad diinu indallaahil islam mooy diine bu wér. yeneen diine yi ngay fay dégg yëpp ay ñal la yoo xamante ne nit ñi ñoo ko créé ginnaaw bi yàlla yónnee yonent yi ñu ñëw leeral dem ñu fent ay diine tuddee ko seen i turu bopp waaye nekkul lu yàlla xam yàlla lu mu xam mooy diine islam kon buñ la laaj la moo nekkoon sa diine fekkoon ne yaa ngi dund diine islam te dund diine islam moom mooy lan mooy wéetal borom bi subhanahu wa taala jaamu ko bañ ko bokkaale ak dara lii mooy diine islam moo tax boo xoolee xeet yonent yi ñoom ñëpp kàddu bi lañ ko doon woote yaa qawmi ubudullaha ma lakum min ilahin xayru yéen sama xeet jaamu leen yàlla te bu leen ko utal lenn benn dend te loolu mooy firi laa ilaha illallah kon loolu la yonent yi doon woote amul différence moo tax ñun xeet yonent yàlla Muhammad lu ñuy wax laa nu farriqu bayna ahadim min rusuli amuñu benn différence di ko différencier ci yonent yi yàlla yónni ñoom ñëpp yàlla moo leen yónni ay ndawam lañu ku ci nekk nag ak mission bi la yàlla jox nga am sa charia booy tracé waaye base woote bi mooy islam te mooy tawhid kon loolu nit ku fekkoon mu ngi koy dund dafay yomb buñ ko laajee la moo nekkoon sa diine mu tontu ne moom mooy islam su fekkoon na dund ko nag dafay jafe pour mu tontu ko loolu xaaxaaxa laa adri ñetteelu laaj bi dafay nekk ñu ne ko lan moo nekkoon kan moo nekkoon sa yonent su boobaa xeet bu mu tombeeloon bu fekkoonte ne xeet yonent yàlla Muusaa la tombeel wala Isaa wala yonent yàlla Muhammad bu boobaa mu tontu xeet nag nu ñu koy composé mooy lan mooy ki nga xamante ne fekkee na jamono bi ñu yónnee yonent bi ba keroog ñu yónniwaat beneen yonent boo xoolee yonent yàlla Ibrahim bi ko yàlla yónnee mu am ay sëtam yoo xam ne ay yonent la ñu doon am doom yoo xam ne ay yonent lañ nekk ku mel ni Yanqub jamono bi mu nekkee Kanaan ba nga xamante ne Yuusuf dem na fi nga xam ne mooy Égypte bi ko papa ji demee fekk ci Égypte da ngay gis loolu la tontu loolu la tontu nit ñi kon da ñëw naa fekk sama doom mii ñu mujjee yónni kon ci moom la ñuy jokk moom moo ñuy wax nan la ñuy jaamoo yàlla kon yonent yi dañuy man suuxante kii day ñëw dem keneen ñëw waaye keneen ki mujjee ñëw yow mi ko fekkee ci moom ngay topp nit ki dem na fekkee na yonent yàlla Isaa yonent yàlla Isaa dem na si diggante bi benn yonent ñëwul mu nekk topp yonent yàlla topp yonent yàlla Isaa topp yonent yàlla Isaa ba yonent yàlla Muhammad ñëw dafay bàyyil bépp charia bi yonent yàlla Isaa tegoon mu topp ki nga xam ne mooy yonent yàlla Muhammad kon ci loolu la ñuy toppee xeet léegi nag nan lañ koy toppee mooy nga topp ko ci ay jàngaleem li mu doon def nga di nga nga di defee noonu li nga xamante ne daawul def bul defee noonu su fekkee nit ki sax na ci loolu buñ ko laajee kan moo nekkoon sa yonent dafay yomb ñëw na ci beneen riwaaya dañ koy joxañ jëmm yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko loo xamoon ci waa ji su ko defee bu fekkoon daan na topp sunnam xam na kan mooy yonent bi ni ay melokaanam ci jikkoom ci yooyu yëpp su gisee dafay yomb mu xam ne kii yonent bi sallallahu alayhi wasallam la woon ñetti question yooyu suñ ko laajee boo ko tontoo day réussir ñaari gaa yoo xamante ne ñoom ñooy ànd ak yow des fois di la defal ci question yooyu noonu mooy alquran ak koor bu fekkoon nit ki mu ngi sonn ci alquran sonn ci koor da ngay gis ne ñoom dañuy ànd ak moom ci biir bàmmeel bi di ko defal ba bal sax di wax ak munkir ak nakir naan ko laajal waaye ñii de tey dañ lañ tontu parce que ñun ñoo ànd ak ñoom kon alquran ak koor nekk nañu ay jëmm yoo xam ne dañ leen gis nii bii nekk ci livre bii nekk ci loo xam ne dañ koy pratiquer di woor waaye ci biir bàmmeel jëmm la ñuy nekk yawmal xiyaam tam jëmm la ñuy nekk kon loolu dañ ko bàyyi xel ñu fonk ko bu baax képp koo xam ne fonk na alquran dina am loolu képp koo xam ne fonk na li nga xam ne mooy weeru koor dina am li nga xamante ne moom mooy loolu kon nañu fonk ci woor nañu fonk li nga xam ne mooy téere yàlla bi su ko defee yii ñoo lay wéetal ci bàmmeel léegi nag képp koo xam ne nag lii dikkal na la ba ñu def la loolu sa àdduna jeex na tàkk nooy def mooy da ngay dem tëdd xaar li nga xamante ne nii mooy àllaaxira foofu nag moom tëdd boobu noonu nit ki mën na fa tëdd tëddaayu àjjana ba mën na fa tëdd tëddaayu safara mu ngi mel ni nga den ak nit ki muy nelaw di gént gént yu neex yow nga den ak moom nii mënoo xam lan lay gént moom moo koy dund et pourtant boo ko yeewoon mu naan la saa yi maa ngi woon beneen monde des fois nga den ak nit te muy dënt dënt ay cauchemar yu metti nga yee ko mu ne pourtant saa yi maa ngi woon ci yu metti et pourtant yéen ñaar yéen a ngi dend nii mais mënoo ko gis da nga gis jëm bu tëdd rek di nelaw loolu mu amee nag noonu nga koy gëmee ci biir bàmmeel bàmmeel nit ki dina fa dund lu neex a neex a neex ba yow nit yow mi taxaw ci wetu bàmmeel bi doo ko yëg comme dina fa dund yu méttee métti métti ba yow mi taxaw si bàmmeel si wetu bàmmeel bi mënoo koo yëg lu dul ne jëm bàmmeel bi rek ngay gis kon lii buñ ko fekkente nit ki gëm na ko moo tax yàlla bu lay jox exemple tout le temps daf lay jox ne dinaa leen rey comme ni ngeen di nelawee yonent bi ñaani mu jàngale sax même booy tëdd daf lay jàngal nelaw bi comme daf misaal la ci dee looy wax bismika allahuma amutu wa ahya maa ngi tëdd si tur yàlla mi nga xamante ne moo ma rey te moo may dekkal loo si jublu moo may nelawal moo may yee kon lii moom mooy mbir bi nga xam ne mooy xew ci bàmmeel ku ci dikkal te ñun ñëpp kenn du si jaas ñun ñëpp ku ci nekk dee dina ñëw dikkal la kullu nafsin zaa'iqatul mawt foo munti nekk loo ko daw daw daw dina la dab joxe nañ ci exemple yu bëree bëri kon su ko defee kooku su ko loolu dikkalee dafay dem tëdd ci place am toog def li nga xam ne mooy xaarante bi lu muy xaar nag mooy bés boo xamante ne mooy bés pénc bëri ay tur lool bëri ay tur lool kañ la xamuñu ko yonent yàlla Muhammad xamu ko boo demee ci xadiisu Jibril yonent yàlla Muhammad Jibril laaj na ko ay question laaj ko ba dernière mu ne ko mata saa yawmal xiyaam bésu penc kañ la mu ne ko yow mii ma koy laaj ak man mii ngay laaj ñoo ci bokk yam xamuñu ko kan moo ko xam yàlla moo ko xam bés boobu su su jotee mooy bés bi nga xamante ne nii ñëpp dinañ jug ci bàmmeel yi comme nañ leen dencee woon ci biir bàmmeel ñuy dem nag ci beneen monde boo xam ne nag benn bés lay duré waaye bés la boo xam ne bés bu dur lay nekk waaye bés boo xam ne bés bu gudd lay nekk lan lañ fay nekkee mooy atte ak li nga xamante ne mooy récompense loolu moo fay nekk kon bés la boo xam ne war nañ ko bàyyi xel war nañ ko taxawee te dafa bokk ci màndarga nit ku ragal yàlla muy bàyyi xel li nga xam ne alaxira dina ñëw lépp loo xam ne nag ay mbir la yoo xam ne wax nañ ko ci alaxira mu gëm ne lii kumpa la waaye tamit kumpa la boo xam ne dinañ ci yegg te dinañ ko gis jaxaran yal nañ yàlla may dégg ak topp yal nañ yàlla xel ci boppam ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إن شاء الله تي أوربيت بوب رك لا نيو كونتيني léegi dugg sëriñ ci li nga xamante ne mooy yowmal xiyaam nekk bés boo xamante ne bés bu yéemu la nekk bés boo xam ne bés bu ragallu la nit ñi ni ñu leen dencee woon ci biir bàmmeel yi noonu la ñuy buqee génneewaat ci bàmmeel yi comme ni ñu leen dencee woon moo tax yàlla wax ci alquran fa isa nufixa fi suur bés la boo xam ne dañuy wal buftu bi buñ ko walee wal bu njëkk bi lépp loo xam ne mu ngi nekkoon ci kaw suuf day rasé wu suñu immeuble yi ñuy tabax ak suñu yëpp day nekk loo xam ne lu rasé la waaye yàlla daal di banque li nga xamante ne mooy asamaan yi banque li nga xam ne mooy suuf yi comme ni ngay banquee li ngay lemee basan yi daal di koy téye ci li nga xam ne moom mooy loxo ndeyjooram su ko defee jamono boobu noonu bu ñu walee buftu bi rek da ngay gis ne doomu aadama yi ni ñu leen dencee woon noonu la ñuy buqee koo génn seen bàmmeel moo tax ñu ne si suuf si fii la ñu juddoo fii la ñu yàlla reyee waaye ci suuf si la ñuy dekkee dekki bi moom si suuf si la waaye atte bi fan la atte bi du doon si suuf si pàkk la boo xamante ne kenn amu fa titre foncier kenn du toog naan sama kër gi fii la neewoon déedéet bu ñu fi dekkee dafa yomb loolu yàlla misaal nañ ko si yonent yàlla Muhammad mooy ci suratul isra subhaanallazi asra bi lay asra subhaanallazi asra bi layli abdan min al masjid xaraam ila al masjid aqsa allazi barak naa xawla ba aaya bi jeex foofu mu ngi xamal ne yoon saa salaam yàlla moom moo ko defal benn voyage boo xamante ne yéeg na dem ci moom waaye fan la jógee dafa jógee Màkka waaye dem fi nga xamante ne moom mooy beytul maqdis muy jàkk boo xamante ne nii tey mooy troisième position ci islam tey bu dul ñetti jàkka yi nit ki amul fenn fu muy une utee ngëneel bu gën fu dul si ñetti jàkka yi sinon bu dul loolu feneen foo julli feneen foo jaamu yàlla ñoom ñoo yem waaye ba mu des li nga xam ne mooy ñetti jàkka yi mooy Màkka muy li nga xam ne mooy Médine li nga xam ne mooy baytul maqdis Jérusalem tey mu nekk xëccoo boo xamante ne xëccoo bu métti la entre jullit ñi ak juif yi ak li nga xamante ne moom mooy chrétiens yi waaye li leer ba leer mooy si loxoy jullit lay mujjee mooy jamono bi nga xamante ne Jésus dina ñëwaat waaye imam Mahdi dina ñëwaat mu nekk moomeel boo xamante ni day nekk moomeel définitif boo xamante ni jullit ñoo ko moom des fois xëccoo lay nekk tey ñu jekku leen bu subaa ñu jekku leen waaye dina nekk moomeel boo xam ne incha allah yonent bi moo ñu ko xamal moomeel définitif lay nekk si jullit ñi te mooy jamono bi nga xamante ni imam Mahdi day ñëw Isa dina ñëw kii dina ñëw yonent bi mënoon na yàlla bi mu koy yëkkati mu yëkkati ko màkk bi mu nekkoon waaye daf koo demloo ba baytul maqdis ba pare doo koo yëkkatee foofu kon foofu mooy jugukaay bi ñun ñëpp ku ci dekk yow ma ku ci dekk bisu pénc sa xel foofu lay nekk ku ci nekk nag ak vitesse bi ngay demee foofu ñi gën a jege ak ñi gën a sore mais rende bi foofu lay nekk yàlla yéegal ñu nag doog ñoo yóbbu ci li nga xamante ne mooy suuf boo xam ne suuf bu vierge lay nekk suuf bu weex tàll boo xamante ne kenn du ci am loo xamante ne da ngay taxaw di repéré wu naan maa moomoon fii maa moomoon amul kenn ku fa am moomeel te ni ñuy dekkee mooy que ne dañuy dekkee ni nga xam ne noonu la ñuy juddoo duñu sol yére kenn si ñun du sol yére moo tax suñu Aysa mu ne yonente saa salaam yow ak ni yàlla fiiree bëggul jaxasoo góor ak jigéen ñuy dekki kenn du sol yére yonente bi ne bu baax buñ dekkee danañ tal leneen lu dul di xool naan diw sol na yére wala diw solul yére des fois nit nekk ci fitna day génn këram fàtte ne sol na ay dàll dina dem ba sori doog a seetlu ne solul ay dàll des fois sax nga génn sa mbaxane mos na dal sam pap bi mu jur génn dafa leel nii ndeysaan ma koy tooñ des fois ak leel bi nu mu xonqee ma naan ko pap cëli dinañ këf sa kii bi parce que boobu dañ ko woo brusquement rek mu génn fëx kër gi mais na ma ko waxee de noonu la jàppaate boobu bi ni dawaat dugg parce que bi muy génn rendre compte ne sax sol na maanaam lan moo tax mooy fitna bi mu génnee yowmal xiyaam nag mooy bésu fitna bi gën a tar mooy bis bëdu fitna boo fitna boo xam ne foo foo natt fitna gi foo natt taraay gi yegg na fa ku ci nekk sa bopp ngay tal yonent yi nga xamante ne tey ñoom ñoo sës nga xam ne ci ñoom la ñu gën a am yaakaar koo ci dem seeti lu mu lay wax nafsi nafsi mooy firi lan mooy sama bopp sama bopp ku ci nekk sa bopp ngay tal mooy bés boo xamante ne kenn du fa mënal kenn dara yow ma laa tamliku nafsun yàlla tuddul tur de nafsun la wax amul bakken buy mënal moroom bakkenam foofu dara wala amru yow ma izin lillah mbiri ci yàlla lay dellu kon nañu dellu ci yàlla fii si àdduna balaa ñuy dem foofu nu ñuy delloo ci yàlla nag mooy nekk ci ay santaaneem bàyyi li nga xam ne moom mooy ay tereem kon su ko defee yomal xiyaam bu ñu dekkee dañuy dekkee comme ni nga xamante ne noonu la ñu juddoo woon dara du changé suñu lenn dong lañ ne mooy changé ci ci ci ci benn xadis bu wér mooy que ne nit ki xaraf bi mu defoon mooy delluwaat mel nu meloon mu mel ne comme musta xaraf waaye lépp nu nit ñëwee noonu lay ñëwee kon nag koo xamante ne bu dekkee yomal xiyaam indaale wul yëre indaale wul dara kooku am na loo xamante ne nii xelam war na dem ci ne am naa lu ma tal kon nañu bàyyi xel ci li nga xamante ne moom mooy bés boobu bokk na ci li nga xamante ne mooy mandarga bés bi mooy nit ñi bu ñu xasee dékk ba ñëw am na benn pont boo xam ne pont boobu siraat lañ ko tuddee siraat nag bu ñu ko waxee benn pont la boo xam ne doy na waar trop ci yéemu ci ni ñu ko yonent bi tegtalee yéemu na ci sew bi mu sew yéemu na ci yëngu gi muy yëngu waaye yéemu na ci ñaw gi mu ñaw nga xam ne foofu dimbalu yàlla rek moo fay jaaral nit yone saa saa nee na siraat boo ko doon misaal mu ngi mel ni comme karaw karaw karaw karaw geenu fas ci sewaay waaye moo gën a yëngu jaan boo jam jaan boo ko fekkee fenn jam ko ni muy wallax wallaxee nee na moo gën a yëngu jaan boobu waaye moo gën a ñaw paaka boo xam ne namm nañ ko ay ati at foofu ki fa ku fa nar a jaar dina metti ci moom ndimbalu yàlla yonent bi neen am na ñoo xam ne bu ñu fay jaar comme xefa xit bi melax lañ fay jaaree am ñoo xam ne bu ñu fay jaar dañuy daw am na ñoo xam ne bu ñu fay jaar dañuy direeku am na ñoo xamante ne duñu mën a jaar dañuy sar fa daal di far pëtëx parce que siraat dafa tegu ci li nga xamante ne nii moom mooy kaw safara ñun ñëpp dañ fay jaar wa in minkum illa waariduha amul kenn ci yéen koo xamante ne nii ci yéen dina jéggi dina romb te du jaar fi nga xamante ne mooy pont mooy pont passage foofu nag ci pont boobu noonu la yàlla dañu présenté benn mbir bu doy waar muy dee bi ñu miin da koy indi si jëmm daal di jékki-jékki daal di woote yaa ahlal janna gaa yi wuyu mais waaye ajana jamono bu ñuy wuyu dañuy tiit mu jékki-jékki daal di woow yaa ahlal naar daal di woow waa safara bu woowee waa safara jamono boobu waa safara dañuy kontaan parce que ku si nekk yaa ngi xalaat waa ajana yaakaar nañ ni woo bi leen yàlla woo mooy seen dem ajana bi dafa nar a changé safara lañ jëm moo tax dañuy tiit ci woote bi waa safara dañuy kontaan parce que dañuy yaakaar ne woo bi leen yàlla woo daf leen nar a génnee ci safara bi nga xam ne foofu lañ nekk su ko defee ndekete woote bi yëpp yàlla dee da leen bëggoon présenté daal di indi dee comme jëmm wan leen ko ni ndax nga xam xam ngeen lii safara ak àjjana ñëpp ñu yuuxoo noonu ne waaw kay lii de xam nañ ko de mooy dee yàlla daal di koy tëral daal di koy rendi bi mu ko rendee mu dee mu ne ko mu ne leen dee léegi jeex na amatul yéen waa àjjana na ngeen gëm ne bëgg leen ne ci àjjana boobu ngeen dugg foofu ngeen di sax te dee doot fa am waaye yéen waa safara tamit na ngeen muñ te na ngeen na ngeen na ngeen bëgg parce que yàlla moom waa safara tamit bëgg leen la leen di wax parce que waxu ñaawalaate lay nuru te du ñaawalaate mooy lan dañu nekkoon fii doon ñaawal yàlla doon ko moke bu ñëwee yomal xiyam tamit mu moke ñu nu ñu yàlla di mokee nag moom mooy lan mooy daf ñuy fay li nga xamante ne nii moom mooy safara fekk lan moo ñu ko yóbbee mooy ñun ñoo nekkoon fi di ko moke su leen ne yàlla nee na ñun ñu ñuy taxaw di di reetaan ku ñu gisee kuy jaamu yàlla ñu koy saboté façon bu nekk da nga koy gis fii si àdduna waaye yomal xiyam dina am benn dàggasante boo xam ne moo fay am ci si ponsiraat boobu mooy waa àjjana dinañ taxaw tiim waa safara gis koo xam ne xàmmee woon nga ko mo doon saboté si ni nga doon jaamu yàlla nga naan ko xanaa bés ni ki tey nag léegi gëm nga mu naan waaw waaw gëm naa mu nekk ay benn conversation boo xam ne day nekk seen diggante am na ñoo xamante ne nag dañuy tege tembe ci ci pont bi du ñu mën a dem du ñu mën a avancer ñooñ ñooy ñi nga xam ne seen jëf yi dafa tolloo bàkkaar ak tuyaa bi dafa tolloo imaam mu soob yàlla yàlla daal di leen jéggil ñu dem imaam mu soob yàlla yàlla daal di leen bàyyi ñu des foofu noonu pëtëx waaye leer na leer mooy que ne lu ëpp si ñoom yàlla dina leen bàyyi ñu dem ndax boo jàngee surtout Araaf si ni nga xamante ne noonu la ñuy defee dialogue seen biir yàlla daf ñuy xamal ne ñi nga xam ne dañoo tege tembe ñoom dinañu nuyu waa àjjana ne yéen kat mucc ngeen rëcc ngeen te nuyoo boobu ñu leen di nuyu nuyoo àjjana lañ leen di nuyu asalaamaaleykum yaa ahlal janna tey de yéen a ngi seen dëgg tey yéen a ngi seen naataange su ko defee fay bi leen di waa àjjana di fay loolu mooy mujj nekk yërmande ci yàlla boo xam ne parce que waa àjjana mënuñu leen tontu tamit waaleykum salaam te ñoom duñu am salaam boobu noonu ndax àjjana moom ku nitu àjjana lu mu bëgg day ñëw ne sa nga mu nekk sa xel nii rek mu ngi sa kanam amul liggéey amul fayeeku amul amul amul amul liggéey amul ñaq amul feebar amul dara ci neexaay xam naa day am xutba boo xamante ne uniquement ci àjjana lañ koy jël uniquement safara lay jëm waaye ci pont bii nii nii nii nii lii moom moo fay xew incha allah dinañ fa rendi dee ñu gis ko waaye dina fa am ay jalako yoo xam ne moo fay am su ko defee yàlla daal di jël ñi nga xam ne ñoo cangoon ci pont bi daal di leen texel waaye tamit waa safara gis loolu mu yomb lool au lieu ñu nuyu sax waa àjjana talu ñu nuyoo ndax si jafe-jafe lañ nekk dañu jékki-jékki rek yuuxu waa àjjana leen may leen si ndox ñu naan parce que fuñu nekk nii tar na torop yàlla mooy tontu ne leen yàlla dafa araamal li nga xamante ne nii moom mooy àjjana waa yéeféeri loolu la leen yàlla tontu kon loolu mooy wane ne ñi nga xamante ne ñoo taggatam bi nekk ci diggante bi mun nañu mucc dem àjjana waaye ñi xas a pëtëx ñoom dootuñu génn foofu kon repêché dina am mooy ñi nga xam ne dañu mos tuuti supplice safara ndax ñoom def nañ ay bàkkaar yoo xam ne yóbbeewu leen bokkaale képp koo xam ne deewaale na ak bokkaale fu mu espérer ndax xaalidina fiha abadan waaye koo xam ne def na yeneen bàkkaare waaye mu mucc bokkaale buy am buy am tamit contrainte day am contrainte boo xamante ne bés dina ñëw ñu génnee ko foofu moo la yoon saa salaam ne ñi génn safara bu ñu ñëwee àjjana dinañ leen xàmmee ci xonq bi nga xamante ne moom la leen safara gi lakk ak melokaan bi ñu indaale indaale sax benn xet boo xamante ne soo leen gisee rek bu ñuy dugg si da nga xam ne ñii dañ leen repêché ñu ngi doog a ñëw te dañ koy gis sax suñu examen yii nii ñi génn d'office bokku ñëw ak ñi nga xam ne ñoom lañu repêché soo leen gisee da nga leen di xam suñu tegee document yi di nga xam ne ñii dañ leen repêché wala ñu dem dañoo génn li nga xam ne moom mooy d'office kon yàlla ñu yàlla boole ci ñi nga xamante mooy ñi nga xam ne ñooy génn d'office te génn d'office bi du lenn mooy ragal borom bi subhanahu wa taala te moom la ñu ubbee woon aaya yi nga xam ne moo nekkoon xutba bi passé yàlla mooy aaya yu mu ubbee kaamil bi zalikal kitaabu laa rayba fii hudal lil muttaqin ñi ragal yàlla mu joxe ay melokaan allazina yuminuuna bil ghayb wa yuqimuuna as-salaa wa mimma razaqnahum yunfiquun walladina yuminuuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil axirati hum yuqinuun yàlla lu mu si teg mu ne ulaayika ala hudan min rabbihim waaye wa ulaayika humul muflixuun ñi nga xam ne dañuy gëm kumpa dañuy taxawal julli waaye dañuy joxe seen seen dañuy joxe seen wërsëg ci leen yàlla jox waaye dañuy gëm li ñuy wàccale yonent yàlla muhammad dañuy gëm li ñuy wàccale yeneen yonent yi waaye dañuy am kóolute ne allaaxira dina ñëw te yàlla nee na ñooñu ñooñu ñi nga xam ne ñoo tegu ñoo tegu ci yoon bu jubbi te ñooñu ñooñu ñi nga xam ne ñooñu ñuy texe yàlla ñu yàlla boole ci ñooñu rabbana atina fi dunya xasana wa fi l-aaxirati xasanatan wa qinaa azaaban naar rabbanaa zalamnaa anfusanaa wa in lam taxfir lanaa wa tarxamnaa lanakuunanna mina l-xaasiriin rabbanaa xfir lanaa wa li waalidayya warxamhum kamaa rabbayaanii sagiiraa rabbanaa xfir lanaa wa li ixwaaninaa allaziina sabaquunaa bil iimaan wa laa tajal fii quluubinaa gillan lillaziina aamanuu rabbanaa innaka rafuurun rahiim rabbanaa xfir lanaa zunuubanaa wa israafanaa fii amrinaa وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على الأحياء والأموات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله